voilà rubrique transport tey ñuy waxtaanee euh, panub ñaari chaloupe yi nga xamante ñoom ñoo nekk ca Gorée mu doon loo xamante ni jamono ji euh, askan wi ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax lan moo waxal loolu dañ koy baax euh, bàyyi ki mooy Théodore Semedo daal koy wax. waaw ku bi dafa nekk lu am solo. mooy tax ñi ñi ñëw dem di xëy si Ndakaaru di dellu loolu nag fu mu toll nii dafa andi benn problème bu metti ci jamono ji may wax ñii tey xam naa bu fekkee ni Alioune Diop. Euh, image yi yemb na ak pend bu fekkee ne image yi yemb na ñu seetaan tuuti nga xam ne souffrance bi ñuy am avant ñu sóobu ci waxtaan bi. Hmm. bu dee euh, élément bi pareegul mën nañoo commencer waxtaan. vraiment les ñi nga xam ne ñooy xëy tey dem di liggéey Ndakaaru am nañ am ñëw di xëy si Ndakaaru am nañ problème élève yi aussi am nañ problème mm-hmm. waaw donc yaa ngi gis ni image yi ni gars yi di téye di rang bi nu mu méttiwee pour wane rek situation bi ni mu méttiwee mm-hmm. voilà waaw euh, Jean ñoo ko ñoo ko gisandoo gis nga fil fil indien bi situation bi tey lan la. bon la situation au niveau de Gorée je pense que c'est c'est pas nouveau c'est pas nouveau d'autant plus que problème yi yàgg na c'est pas quelque chose yoo xam ne man maa ko créé boo leen demee ci médias yi que ce soit dans la presse écrite euh, au niveau des vidéos sur YouTube da ngeen gis ne c'est des problèmes qui datent de plusieurs années pas même ci ci chaloupe bi et le problème il est récurrent avec la LMDG je parle de la liaison maritime Dakar-Gorée mm-hmm. qui est habilité à assurer le transport des biens et des personnes de Gorée. wala waaw habilité pour transporter nit yi au niveau de de Gorée mais li ñu ci gis mooy dañ dem ba benn instant. fii may wax ak yéen ni chaloupe bi rafistolewaat nañ ko mu ngi daw. mais daw boobu muy daw. je pense que lépp luy lu bokk ci transport dafa am euh, dat limite date wala mu am licence de circulation. Mm. boo xam ne da koy permettre. mu liggéey bu jeexee ñu changé ñun ci phase boobu lañ nekk. Euh, images yi ngeen di gis c'est des images yoo xam ne chaloupe bi dafa naroon costé mu am problème mu moteur mu dérivé dem ci xeer yi presque ci plage bi heureusement que jour boobu y avait pas trop d'affluence ñi ngeen di gis la plupart du euh, ci kaw pont bi c'est des Goréens peut-être ñëw pour euh, s'enquérir de la situation. Mm-hmm. lundi ba lay passé. pratiquement journée bi kenn liggéeyul c'est-à-dire su ma nee liggéeyul mooy gise yi c'était fermé. Hmm. pourquoi parce que chaloupe bi dafa am avarie ci guddi bi ñu koy rafistolé ci la ñu indi benn euh, remorqueur boo xam ne remorqueur képp ku dégg remorqueur mooy day remorquer dara day remorquer bateau yu panne wala muy dugal ay bateau bi port di leen génnewaat remorqueur euh, liggéeyam du transport de personne c'est-à-dire personnel navigant bi mooy nekk ci biir mais duñu euh, ils sont pas habilités di yóbbu ay nit. di dem ak dikk ci même jour bi de de source sûre il y a eu des touristes qui étaient sur l'île chaloupe panne ils ont fait euh, naviguer l'ancien bateau présidentiel euh, mooy euh, Signard je pense que boo jëlee Signard di ko jox ay touristes pour ñu ñëw nan mhm. na nga mun jël Signard jox ko ay Goréens pour ñu dem liggéey élèves yëpp bloqué tout le monde sait qu'au niveau de Gorée am na école bu prestigieuse bu fa nekk muy Mayama Ba élèves euh, yi dañuy bloqué. Mhm. vendredi d'habitude ils rentrent vers vendredi bii passé ils étaient obligés d'aller très tôt à huit heures parce que chaloupe bi xamoo ban heure lay taxaw. Mhm. xamoo ban heure lay dox. lundi ci li ma lay wax dañ ñëw man je me suis déplacé personnellement au niveau de l'embarcadère bi ma ñëwee j'ai vu ñaari circulaires ñu taf ci bunt bi. Mhm. képp ku xam Gorée tàmm c'est-à-dire nit bu tàmmee dara mun na romb du lire yow da ngay nekk Walfadjri romb mun nañ teg lettre circulaire comme tu es là mun nga ko doo ko xool. donc ñuy avertir nit yi ne chaloupe bi day taxaw 9 heures man ñi ma jot a contacter ñi ma am seen numéro ñu si bëri amuñu woon information bi te euh, remorque bi ñu teg 40 personnes lay jël. mais boobu année institution municipale est-ce que ci biir gore def nañ ay affiches wala wax nañ nit ñi ñu. ñu xam ne ne kat lii ak lii dafa am. côté boobu euh, je pense que, ce jour-là le maire n'était pas sur place. il, n'était pas sur place. parce ouais. était au à la CAF Award bi ñuy joxe ballon d'or bi. Mm. mais équipe municipale c'est un tout comme li ñuy wax. Mm-hmm. Mm-hmm. mais communication bi ñu am la seule communication qu'on a eue c'est les affiches de la mairie qu'un conseiller municipal a mis sur le groupe Gorée News man à partir de ça j'ai pris deux images que j'ai insérées. et à l'heure où je vous parle ba tey il y a cinq mille et quelques membres dans ce Gorée News là quatre personnes ñoo réagir ci ci forum boobu quatre personnes. Mm. c'est-à-dire ñoo ko mas ñoo ko mettitlu ñi si des ñëpp je sais pas si ragal la wala parce que quand on parle de Gorée qu'on se dise la vérité bu ñuy waxan wax Gorée on touche tout le Sénégal. bien sûr LMDG bu exister c'est parce que Gorée dafa am. bien sûr si Gorée sort du Sénégal c'est-à-dire bu ñu bu Goréen yëpp. de génnoon ñibbi gàddaay ñu tëj Gorée suuxal Gorée LMDG dootul exister donc faut qu'il respecte les gens et il y a aucune autorité LMDG bu toog déplacé wu au niveau de Gorée pour ñëw ne nit yi lan mooy seen métit la non non c'est-à-dire que même manque de considération de femme. maanaam problème depuis ñaata jours la depuis ñaata fan. problème une semaine c'est-à-dire bii y a eu d'autres problèmes lii y a peut-être deux en y a eu ce même problème en y a eu ce même problème et pour rappel 2022 waa population Gorée téye woon nañu chaloupe bi ça dañ bloqué woon accès chaloupe bi au niveau de l'île mmh. ça tole un tollé c'était avec l'ancien ak ancien directeur euh, port euh, c'est-à-dire mmh. moom jëloon na si ay jéego ba PCA yi ay ñoom monsieur ay Moussa Sy ñoom ñëpp déplacé wu ñëw Gorée ñu signé benn protocole ci biir protocole boobu parce que évolution la ci biir protocole boobu bi ñu amee cri de cœur boobu ils nous ont promis une nouvelle chaloupe c'est-à-dire dinañuy indi chaloupe bu bees dinañu jël ay goréen ñu liggéey jeunes yi parce que la plupart du temps jeunes yi nekk Gorée amuñu liggéey au niveau de la LMDG loolu aussi il faut il faut le créer il faut que ñu wax ko quota bi jeune yu Gorée ñu nar a liggéey loo embarcadère bëriwul muy Ah ñu ne pourtant c'était inscrit dans le cahier de charge c'était inscrit dans le cahier de charge ñu dem ñu génn ci loolu ñu ñëw ci volet euh, subvention bi port di jox euh, Gorée il faut rappeler une chose la chaloupe n'appartient pas à Gorée mm-hmm. moo tax je ne peux pas attaquer <coughs> directement la mairie mmh. mais dinaa leen attaquer quand même parce que ñoom ñooy autorité compétente autorité représentante de l'île de tous les Goréens mm. parce que boo gisee ma interpeller le de Dakar euh, le maire de Gorée c'est parce que ça c'est des problèmes de survie c'est des problèmes de sécurité. bien sûr tey bu Gorée amee problème damay dégg nit yi naan non Gorée nit yi mun nañu fay du ñëpp mun fay Gorée. am nañu ay yaay ay tante ay maam yoo xam ne ñu ngi. Gorée def xam loolu xalaat la sax. voilà waaye loolu ay fay loolu wax la. parce que nit dafa am ñaar dafa am mun fay ak mun sauver sa bopp ak mun sauver ay nit. Mm-hmm. bokkul. Gorée y a d'excellents nageurs mais est-ce que c'est des bons sauveurs. on nous a mis les sapeurs-pompiers est-ce que sapeurs-pompiers yi ils sont tous entraînés à ça parce que yooyu yëpp ay affaires ñuy seet la ñun tout ce qu'on mooy que état bi na jël ay ay euh, responsabilité mooy tey ñëw def benn audit au niveau de la LMDG ñu wax ñu déjà si licence bi chaloupe yi am elle est toujours d'actualité benn parce que chaloupe yi yàgg na chaloupe yi entre 99 2002 la ñu am ñaari chaloupe yi ñu ko doon magnifier li ki mais dafa am loo xam ne bu demee day màgget bien tey LMDG seen oto bu yàqoo dañ koy tëj ñu dem jënd bu bees. ñun chaloupe bi la ñu am Gorée sa à ñun bu ñuy dem Gorée di seete suñu lu muy amancé ci euh, lu muy dugg am ci koppar ministre est-ce que jotul tey Gorée ci boppam am moom moomal boppam amal chaloupe defer état bi même bu dee contrat de concession loo xam ne moom mooy moomal ay ba ay chaloupe bu boppam est-ce loolu jotul. mais loolu nous on l'a on l'a décrié parce que je ne cache pas que durant les dernières élections élections yi amoon municipales yi. nous on était on accompagnait une candidate. Euh, loolu loolu moom day nekk communication quoi mais. une com une non parce que loolu daf si bokk si suñu programme. si suñu programme. Mhm. on avait fait cette demande là c'est-à-dire bés naa la yónnee suñu programme nga xool programme bi ñu amoon. c'était euh, déjà d'insérer les jeunes au niveau de la LMDG discuter yenn quotas yi d'échange yi ak LMDG parce que c'est tout à fait normal. xam nga LMDG. Euh, liaison maritime Dakar Gorée. tey. foofu ñu toll mooy ñun dafa am ay yu bëri yoo xam ne dañ ko dañ ko kaas di ko di ko wax mais kenn du ñu déglu c'est-à-dire considéré wuñu goréen yi benn su ma nee considéré ñu goréen yi mooy il faut que suñu autorité sax moom mu mun ñu représenter muy monsieur le maire foog mu mun ñu représenter au niveau instance su LMDG mais là ils sont affamés su ma nee ils sont en fan y' a aucune communication. y' a aucune communication. kon moom moom mom kiiwul goree du leen peete kenn du ko dégg fekk. pour pour lan ñu pou pour lan ñu dugg ci phase boobu ce que je dis c' très simple parce que goree y' a le maire y' a les <laughs> mais goréens si ne font pas d' action à dire man je me suis man dama décidé de façon libérée ma dem wax. parce que daf ma metti mhm. c'est-à-dire que euh, ñëpp toog ku nekk bu ñu laalee sa gox tu vas te sentir concerné parce que danger buy ñëw nga koy gis xam nga ne bu laalee yow forcément di nga am mbokk ci biir forcément dina am lu la metti la Joola bi mu amee mais tout le Sénégal était impacté mm. et pourtant dañ ne la Joola Ziguinchor mais tout le monde sait que Sénégal tamit benn bopp la mm. donc Gorée aujourd'hui bu amee problème bu ndaw je vous dis des images yoo xam ne mu ngi ci internet bi boo leen demoon seet ko des fois chaloupe bi day ñëw sans lumière c'est-à-dire biir géej lay pa di yegg si sans lumière des fois chaloupe bi daw ba jege. Euh, kii bi moteur yi fay. pour la sécurité même des passagers. mais c'est ça mm. mais et puis temps de réaction c'est-à-dire accident dafa am sens accident dafa différent de incident. Mm-hmm. c'est-à-dire accident lu gaaw la mënoo ko prévoir day jékki-jékki ni vëpp. léegi bu bu bu la dalee yow ban temps de réaction ngay am pour dem jëli gilet jëli ay bouée jëli ay kii parce que chaloupe bi elle est dotée de ça mais est-ce que matériel boobu sax mu ngi dox. mais mais qu'est-ce qui aussi conseil municipal bu Dakar bi nga xam ne am na xaalis Dakar ville de Dakar am na xaalis qu'est-ce qui parce que on dit que la ville n'a pas de limite de territoire communal qu'est-ce lan moo tax mu yéen conseil municipal bu Gorée wala waa Gorée leen porter projet bi auprès de la ville de Dakar ne leen kat lii moom demande sociale parce que sans la chaloupe Gorée du dox. du ñu dem du ñu dikk. tu sais Théo man je pense que yooyu yëpp gars yi dox nañ ko mais du ñu def suivi c' est comme c' est benn benn gangrène le Sénégal c' est à dire politiquement dañuy ñëw ñu wax ñu dige mais du am fin du am suivi. Mm-hmm. protocole boobu ma lay wax cahier de charge bi bi ñu ko signé c' était l' année dernière c' est en 2022 n' est ce pas def na fi ngandim bruit nit yi dugg génn fu mu mujjee mujjewul fenn. et même protocole bi wax. parce que protocole bi ci biir protocole bi. déjà chaloupe bu bees dafa naroon ñëw. Mhm. ñu dig ñu. ils ont même fait une communication à la suite de ça en fin mai. Ah, waa LMDG. ak ancien directeur bi. et je pense que institution bu toll nii port de Dakar c'est une continuité. Mhm. donc même bu ñu changé parce que un mois après xam deux mois la ñu def euh, chamboulement mu am euh, changement poste yi. donc le directeur de du de la du port. Mhm. dem feneen ñu am directeur bu bees. est-ce que directeur port bu bees bi sax moom ñëw na seet si goréen yi ñëw goré pour xool. parce que si cadre m la bokk. il se déplace pour aller voir des paquebots il se déplace pour aller voir des des des ci biir port ñu ngi koy gis man damay suivre journaux yi mu ngi déplacé wu di dem fi ko arrangé man je pense que lu ñuy boole politique day yàqu. Ah, goréen yi li ñu soxla mooy dund. Mhm. dañu soxla dund dund boobu nag. ku ñu régleel problème mu chaloupe c'est-à-dire nit bu jug régleel ñu problème mu chaloupe tu auras réglé quatre-vingts pour cent des problèmes des Goréens et je m'explique mm -hmm. vingt-deux heures en semaine vingt-trois heures Gorée est fermée bi lendemain bi lay ñëw mm-hmm. Mm-hmm. c'est nit bu feebar gore c'est-à-dire vingt-deux heures bu ñu tëjee dans leur subconscient Goréens yi seen loxo ci yàlla lañ koy delloo di ñaan ba suba teel pour dara bañ a xew ah mais Gorée foofu amul ay euh, hôpital yu mel noonu yoo xamante na. on a un centre de santé. mais est-ce que centre de santé bi les me amul médecin. mais mais am na genre ambulance quand même boo xam ne kii la genre chaloupe mais doxul doxul. mais mu ngi fa mais doxul. je vous naa leen jox beneen kii récemment on a eu des décès à Gorée. Ah des corps qu'on a mis dans la chaloupe. avec les passagers pour transporter leen sur Dakar du lu ma créé. lu am ambulance dafa panne en am na mais dafa panne. ambulance bi daal da nga koy gis yi île bi c'est-à-dire même musul daw du daw non day day daw du daw xam nga da ngay ñëw nga gis ay épave man je dis que Sénégal dañu bëri ay épave c'est-à-dire xam nga bateau bu bu ñu peinture defar ko teg bokkul ak moo boo xam ne mu ngi fonctionné ko ay passager ça veut dire que ambulance bi doxul doxul cest à guddi yow boo bëggee évacuer nit tey boo bëggee évacuer nit mënul nekk mënul nekk mënul nekk nekk du ce problème là loolu du lu bees. mais loolu loolu kan moo ci war a taxaw concrètement. bon waaw après euh, kii euh, euh, ma ci question boobu maanaam conseil municipal bi bi actuellement nii yow ne nga seen candidat xam naa ko ku jigéen la sax candidat bi moom waaw damay laaj. ndax yéen conseil municipal yéen amu leen ci ay kii. mais on a sept conseillers municipaux. ci waaw mais ñooñu est-ce ñu ngi wax. xam nga ñoom xam nga ce que je veux dire mooy tout le monde sait comment ça se passe au Sénégal. Euh, Sénégal dafa am loo xam ne daf fi daf fi am majorité mécanique comme on a l'habitude de le dire. même si ñu dénoncer xam nga. man xam naa non attends ils peuvent dénoncer. non non non non. ils sur la liste ou pas. j'étais sur la liste. mais man même bu ma nekkoon conseiller municipal loolu dama ko mos a dégg ak sama candidate mu may dégg peut-être xam na li ma koy wax man j'ai toujours été j'ai toujours prôné pour jeunesse. je ne suis pas vieux nag mais man dama mus a xeex pour xale yi ñuy topp ñu mun roy parce que Gorée dafa jugee de cent wàcc zéro. ah bon. Gorée dafa jugee cent wàcc zéro ñun. le maire là il sert à quoi du coup. bon le maire il est dans ses activités mais xam nga benn. mais quelles activités activités sportives. non il est dans les activités sportives. il est avocat il est dans ses activités. professionnelles boo créé boo nekkee booy dé booy booy booy. vice-président de la CAF. vous êtes combien à Gorée euh, en termes de d'habitants. Euh, il doit y avoir 500 personnes 500 am. non non ñun ñooy voté foofu. mais ñu bëri ak diaspora il y a des résidents. il y a des résidents aussi qui sont qui qui qui vivent à l'extérieur mais qui viennent qui qui viennent. officiellement qui vivent aussi. officiellement Gorée ñaata nit la am. comme je dis ça tourne autour de 500 700 personnes. ñoo ñoo dëkk Gorée. ñoo dëkk Gorée. officiellement laa wax. voilà même bu ñu fa dul fanaan. non bëri nañu. ñooñu ñoo fay ñoo fay fanaan goréen yi bëri nañu. mais bu ñuy voté nag ñeen ñooy voté si euh, euh, kii bi euh, fichier bi fichier bu nekk Gorée. mais bu ñuy voté j'ai pas j'ai pas la liste exhaustive. résidents yi quoi résidents yeeg yooyu mais ça tourne de de 500 votants au niveau de Gorée. peut-être ak diaspora bi on peut tourner à 3000. 4000 non ñuy voté moom non suffrage la nombre suffrage yi yi existé biir Gorée c'est-à-dire liste yi Gorée ñaata nit ñoo fa inscrire pour di fa voter même bu fekkee ne sax mun nañ bañ a voter que nekkuñu fii wala parce dañu. naan dañu bëri na pas la liste exacte parce que j'ai pas les documents voilà mais. Mhm. buñ ko amee je veux dire que ñi nekk ci biti Gorée sax ñoo ëpp ñi nekk biir. alors Jean Charles problème bi nga xam te ni nekk di ko waxtaan depuis sànq ak léegi kan moo ci war a taxaw concrètement pour que quand même solution mën a am ci jafe-jafe bi ngeen nekk di dund parce que sànq yaa ngi koy wax ci biir wax bu dee problème dafay am ay touristes ñëw ñu leen jox loo xamante ni xëy na askan wa fa nekk ñoo ko gën a yellool kan moo ci war a mën a taxaw di régler il faut déjà mettre en numéro un le maire de Gorée. <coughs> ça mënuñu ko mënuñu dévier. moi je je parle directement à à maître Augustin. Mhm. Mhm. qui est aussi qui représente euh, tous les Goréens mais qui est aussi un grand frère. Mhm. donc mooy li ma lay wax. c'est-à-dire que Goréen yu bëri boo leen gisee. ñun ñëpp ay mais man ma gis tey ma gis euh, grand bi wala ma gis teew wala ma gis keneen. Mhm. ma gis lu ma metti dama ko koy wax loolu ci dignité la bokk. Mhm. bokkul ci réewande euh, wala. vous avez un budget de combien. mais qu'est-ce qui se passe à Gorée. xam nga xamul dañ koy dégg nii mais xamoo sax comment ça. non Gorée tey. tey am na ay activité c'est quoi am na ay impôt ñaata la la mooy budget municipalité bi par exemple xam nga yooyu tam baaxoon na bu ñu ko xamoon dinañ mën a xam ci protocole bi on avait même signé ci protocole bi ne dañuy jël taxe municipale bi ñuy dugal Gorée tey boo duggee dem Gorée tu payes non seulement la chaloupe mais en plus que c'est très cher dafa cher tu payes la taxe de 500 francs non mais même moi je dafa cher mais loolu dañ biir réew mi nga bëgg a wu pour def benn 3 kilomètres 4 kilomètres di fay autant d' argent moi je trouve que c' cher. mais ça la LMDG parce que liberté loolu ci liberté de déplacement la war a bokk. fixé prix bi. mais fixé woon nañu ko dañu ne woon dañuy dañuy inclure taxe bi ci biir billetterie bi. c'est-à-dire ci biir 1500 yi dañuy inclure loolu ci protocole bi inclure 500 francs yi donc du changer c'est-à-dire 1500 lay nekk. te y a tarif nag pour les goréens aussi. non nous tarif par exemple euh, certains goréens moi par exemple j'ai une carte boo ne elle me permet de prendre un abonnement annuel si je veux. Mm. et c'est c'est par par donc ça ah, fait 7200 l'année. loolu on le loue. Il y a des y a les enfants qui payent man li mu mënul comprendre mooy nga nga nekk sénégalais Gorée nekk ci territoire u Sénégal nekk ci suufu Sénégal mhm. nekk à ci euh, nekk biir Ndakaaru région de Dakar la bokk benn euh, ñaareel bi mooy euh, distance bi entre Gorée ak Dakar matul sax cinq kilomètres deux kilomètres deux kilomètres et quelques waaw je disais trois cent yaa ngi dégg donc loolu mu nekk yow boo buggee déplacé wu yow doomu Sénégal am nga droit jóge fii dem Géejawaay am nga droit jóge fii dem Kër Massar dem gore dem feneen ak feneen ak feneen dem Ngor man pour man c'est injuste et c'est anormal ngay fay déjà autant lenn la nag mënoon nañ nangu loolu am dans le cadre de la solidarité pour defar Gorée vu euh, histoire Gorée ak vu li ñu fa war a def yépp pour pour pour pour investir Gorée sénégalais yi def ay effort pour loolu d'accord naa comme par exemple ñu dëkk biir Gorée di ñu ko sàmmal ba ñun ñu fa ñëw di ko vérifier di di di di di ko di fa dem ak touriste ak yu demee noonu ñu ñu def fa ay investissement mhm. sacrifice yooyu bu dee xaalis bi loolu la mën a jëriñ man d'accord naa waaye xaalis bi kon finalement moo tax ma lay laaj par exemple dëkk boo xam ne lu toll ni Gorée li fay dugg ci alal yépp injustement parce que sénégalais bi biy déplacé wu. waru fay 1500 pour 2 kilomètres et demi. Mhm. pour man donc loolu bu ñu ci dugalee xaalis boobu xaalis bi waruñu toog tey ngeen ne amu leen ay ambulance waruñu toog ngeen ne amu leen ay mais Gorée dafa war a naat. Gorée dafa war a doon loo xam ne ñëpp dañu fay bëgg dem. visité ko dafay bëgg dem am envie daan naa ni benn verre doxantu ba Gorée. <laughs> dépenser fa sa xaalis. bien bien mais loolu amul. alors que vous vous mettez 1500 rien que ça rek 1500 francs rek ngeen di dugal pour benn 2 kilomètres et demi. voilà ñaata nit sans compter les étrangers. je reprécise juste pour ne pas aller loin je reprécise que l'exploitation de la liaison Dakar maritime Dakar Gorée. Mhm. Gorée yi bokkuñu si. waaw dama lay dama lay jox benn ah, exemple. loolu déjà loolu le port. mais port war le port et la MDG. port est ñaata la ñu doon verser Gorée ça de 20 millions par an. sur l'exploitation de la chaloupe. c'est pas normal port lu tax mu ko jël ci protocole bi dañ ne woon dinañ ko yokk léegi. mais port da ko warul jël parce que xam naa nit ñi fa la ñuy jaar dem dañ ciy am. mais léegi nañ wax man li ma bëggoon xam mooy depuis le protocole est-ce que moom engagement yi ñu jëloon sax ñoom LMDG ñu ngi koy fay euh, gore parce que redevance bi je pense que dañu ils avaient quitté millions pour yéeg aux alentours de 50 millions mais loolu maire bi moo ci war a taxaw loolu moo tax on est venu crier parce que on a passé problème c'est le maire c'est pas euh, xoolal problème yi ñii di wax ñëpp yëpp dañu waxante dëgg hmm. parce que xoolal premier euh, maanaam. moom la ñu fal. c'est le maire c'est le maire c'est le maire a xam naa nag man bu ma waxee nag. lii am ba am mooy. waaw tey jii kii Euh, ki ñu njëkk a moom mooy mm-hmm. Augustin Senghor. Mm-hmm. waaw qu'est-ce qu'il a fait. voilà dafa mel ni ay visite rek. Mm-hmm. visite rek boo def ki Gorée nangam nangam. def ce beau discours. alors que les Goréens veulent un un changement. changement bi mooy lenn. ñoom si li ñu dëkk ñu mën a am déplacement bu facile xaalis biy dugg ñu xam fu muy jaar. parce tamit du ñëw. parce que dafa am lu ñuy wax le respect de la convention très de Bâle parce que convention de Bâle y a le principe payeur rien que la chaloupe aussi nañ fàttali day polluer hmm. comme day polluer redevabilité dafa war dellu dellu si si goree voilà mi ngi noonu donc xanaa nga def un un appel je pense que c'est très simple on interpelle encore une fois le, maire de Gorée qui nous édifie sur le problème parce que euh, y a des choses qui se disent je pense que c'est même lui qui est, qui l'avocat de la LMDG mmh. pour ah. information ah. donc aujourd'hui aujourd'hui <laughs> aujourd'hui c'est l'avocat de la LMDG cest à lui qui représente la LMDG comme avocat bon le conflit d'intérêt c'est ce que je dis nit yi ñu ngi koy wax c'est-à-dire man dafa am benn benn principe bu may demee mmh, mmh. Euh, nit yi nañu bàyyi di wax di na nañu bàyyi di def ay bruit de couloir mooy di wax ci suuf mmh. li leen metti nañ ko wax ci kaw waaw mais dans le respect c'est-à-dire dans le respect aujourd'hui ñun dañuy interpeller LMDG parce qu'il y a des mouvements qu'on est en train de préparer c'est-à-dire nous on a une association qui est au niveau de Gorée il y a plusieurs associations on va prendre en compte ces associations-là créer benn conseil juridique parce que on a eu j'ai eu un conseil d'un même frère que je salue au passage créer un, conseil juridique ñoom dinañuy wax lan la ñu yoon may ak ni ñuy def comme ça suba on ne le souhaite pas bu problème amee ñu xam ne ne y avait des personnes qui avaient déjà alerté alerté woon nañu ci problème buy ñëw et que LMDG dañu afoon faalewuñu d' accord mi ngi noonu amoon na solo on espère que yëf yi dina daal di décanté bu baax baax c'est un plaisir vraiment euh, mm-hmm. dalal la ci plateau bi Théo ñu ngi waaw di wax nag euh, peut-être temps bi xoj nañu euh, di wax nag le maire la moom Augustin il doit venir ici s'expliquer devant les Goréens et les Sénégalais mm. Mm-hmm. parce que tamit moom na ñëw fii mu wax. mu leeral nit ñi parce que tamit goréen yi gars yi dañoo sonn parce que fu mu toll nii lenn dafa am de est-ce que am na ay xale yu am ay problème devoir di rater seen devoir. jamono ji mm-hmm. ak ñuy tardé seen liggéey. Mm-hmm. ñu leen di jox ñu leen jox ay demande d'explication. loolu aussi moom waaw ñu feebar moom na ñëw fii aussi expliquer. ak problème bi nu ñu koy résoudre parce que c'est une question. voilà boo xam ne qui mérite réponse urgence la voilà mi ngi noonu Théo merci beaucoup xam naa dina ci bàyyi xel bu baax baax parce que mm. loolu moo tax ñu teg ko fa donc mi ngi noonu merci dañuy daal jël léegi-léegi suñu actualité politique